ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi ñuy suivre ci seen bi di Likzo TV ginnaaw ba kii nga xamante ne bii moo di Sokono Stress bu mu defee vidéo boobu nga xamante ne bii cee nekkoon di xas Titi di ko wax wax yoo xamante ne bii kenn xamul yenn genre wax la ginnaaw boobu loolu jàllee kii nga xamante ne bii moo di Jimbori moom génn na ci def na ci ay grave révélation yoo xamante ne bii yu mucc ayib la gars yi ñu déglu Jimbori kàddu yooyu nga xamante ne bii tontu na ko kii nga xamante ne bii moo di Sokono Stress ci vidéo boobu nga xamante ne bii da ko def ci Titi gars yi ñu déglu ko gaay tey nag ci problème mu Titi bii laay wax ak Soko No Stress léegi dama leen di laaj du gis ngeen Titi gis ngeen Titi bu baax mais Titi jigéen la ku ko gis di nga xam ni jigéen la mais Soko No Stress mii laa bëgg yéegi ngeen wax ma góor la wala jigéen góor góor la wala jigéen te Titi sax wax dëgg yàlla boo ko tegoon nii moom Titi teg yaay Soko Titi ngay tànn ba pare lu ma jaaxal mooy ana góor ak xasante ak jigéen te bàyyi ay sœur bàyyi ay mag bàyyi yaay bàyyi ay mbokk yu xam ne nii ñu ngi fi ñu mën a wax ci ñoom te waxuñu ci moom bëñam yi mais yàlla moo ko bind yàlla moo ko bind lamb ci lamb ci jëkkëram nobe na ko noonu ba nobaatoo wax dëgg yàlla mais yéen lan mooy seen problème ak titi ba pare góor xasante woo ak sa moroomu góor di xasante ak sa moroom koo xam ne nii sa sœur la war a doon sa rakk yéen titi li mu tekki ci dëkk bi tekkiwu leen ko tekkiwoo ko tekki woo ko yaa ngi ci mbedd Espagne yay taxawaalu titee ngi ci kër yi fii di toggal jëkkëram di fóot ak a paase yor njabootam gis ngeen ko si stade bi bii paase doomam la indaale boo xam ne mën na la kaa may soxna du la ko may parce que yow amoo jom ku ñàkk jom nga ba pare gis nga xas doomu aadama xam nga lan moo ci mën a lan moo ci mën a yeewu yonent yàlla nooyin tuddul nooyin de dafa romb benn xaj daa di wax si xelam ne xaj bii de man de xaj bee ka ñaaw yàlla defal xaj bi ne ko tontul xaj bi ne ko nooyin bu ma doon bind sama bopp doo ma dàq yàlla moo ma bind. loolu noonu moo ko jural moom bu yemal xiyaamee ñëppay wax moom du wax mais lan mooy Sénégal Sénégal lan la ana Sénégal bu njëkk ba. léegi da ngay gis ay nit yoo xam ne dañ leen di fay ñuy saaga di leen fay ñuy xas ay nit xamante seen nawle xamuñu seen moroom gis nga góor da daan jël moroomu góoram nawloo ko di deflante góor man góor lu ma si xam da ngay discuter ak sa moroomu góor mais góor guy discuter ak ak ak jigéen mais góor jigéen nga mais yow su ko noo ñun xam nañ la bu baax da dem gis nga kayit yi nga signé yaa ngi ko signé Euh, Belgique Belgique dafa am benn tribunal bu fa nekk da ngeen dem signé foofu këyitu góor jigéen pour koo leen tooñ kenn du leen refoulé kenn du leen indi mais yéen li ngeen di wax nii kii bëñ yi na ko defar ak kii na def noonu ndayam ak kii amu leen benn argument ba pare ñi leen di déglu sax bu yàggee amatuñu argument amuñu argument gis nga nit. boo nekkee ci réew bëgg neen yow influenceur nga vraiment war war ngay mën a wax luy jëriñ doomu aadama mais yow amoo lenn luy jëriñ doomu aadama ak sa veer yi mel ni doktooru lëg ak sa létt yi mel ni fett jiit ak sa lex yi mel ni mbojum lu may bañ a wax xoola góor na góore waay gars yi na góore kii ngeen xas jotewul ak yéen dara waa acca